Sunu People TV, la chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information en temps réel. Suivez l'actualité politique, musique, buzz, sport, société. Abonnez-vous sur YouTube afin d'être les premiers à regarder les toutes dernières vidéos. Contact 77 732 92 37. Sunu People TV, l'actualité en temps réel. L'actualité en temps réel. xaaral mais barke Seydina Mohamed doo nit xoolal jii teraanga xoolal jii teraanga Abdourahmane Baldé ni ma ko teglee nii baax na non nii baax na waaw cey magal ga non bii màggal moom narul yomb barke si yowul xadim bii màggal moom narul yomb macha allah